Je me présente, je suis docteur Cheikhouna Gaye. Je travaille ici à la pharmacie Fadilou en face, euh, en face de l'hôpital Nabichouker. Donc ce qui s'est passé, dafa am benn benn ben, ben, ben, patient bu ñëw bëgg benn garab bu bëgg jënd euh, tata tétavax le bëgg jënd injection là. alors que c'est un produit qu'on qu'on ne vend pas sans ordonnance waruñu ko jaay sans ordonnance alors mu attends je vais dinaa damay woote kër ga ñu envoyé ma ordonnance par WhatsApp Les bi mu génnee dugg si waat wanuma ba tey ordonnance man ko garab bi kenn du ko sans ordonnance et là il a commencé à crier sur moi il m'a dit que tu es impoli tu es idiot et moi aussi ma ma delloo ko ko mu mu ma delo delloo ko ko tu je vais te faire regretter ce que tu m'as dit man ko allez-y on va voir après quelques temps après mu guen tok bam mu ko alors que xaw ni commissaire commissaire la ndekete bi bi mu génnee mu woo woote police parcelle Quelques temps après ben camion wàcce taxaw fi ay ay agent de police je ne sais pas agent de police ou pas. lan lañ ñu dugg ci pharmacie bi par la force et bi ci pharmacie bi il il faire sortir par la force casser vitrine yi fi voilà par la force yobuma yobuma police ni la alors que dama ni ko rek garab bi kenn du sans ordonnance

solu civil la woon taxaw comme comme comme un patient qui a besoin d'un médicament alors que le médicament qu'il avait besoin on ne le sort pas sans ordonnance donc ni le demain. ñu ngi désolé vraiment ci li parce que nous sommes des agents de santé publique di sommes suñu agents de ko ci yoon taxaw fi pour santé population yi tey jii man damay ne Cheikhouna docteur Cheikhouna Gaye li mu def taxawaayu gor la def taxaway pharmacien responsable def parce que bëri na ñoo xamante ne tey boo yor sa xaalis lo soxla ñu jaay la fii nag yàlla dimbali nañu ba ligéy bi ñu ngi conformer la législation garab bi warul génn té ordonnance amul ñu wax la ko ah ñun xamuñu kan nga def li yoon santaane rek lañu doxal parce que fi ku fi mëna dugg rek dañ lay considérer comme un roi c'est un patient patients yi seen wér-gu-yaram moo ñu fi bàyyi kon nag duñu fi nekk di def lu ñu neex ordonnance bi bu ñëwul duñ la jaay garab loolu warul indi coow ah ba yow nga dem indi sa doole jël say di jël say euh, police bi nga xamante ne dafa war a nekk pour la sécurité publique pour la sécurité de population nga ñëw ci benn nit xanaa ñaari benn policier sax xajul ci benn nit waxatumaa nag nga indi lu ëpp juróomi policier ñu dugg yàqate fii

ministre de la santé syndicat ordre ñu war a mun taxaw un signal fort ba pharmaciens yi ñu delloo si leen li nga xam le monopole revient aux pharmaciens c'est pas des policiers wala ku mu neex rek ñëw def lu la neex ñoom li ñu war a wax war waxuñu garab yaangi ni ñu diko ko jaay ci mbedd mi bu ñu ñu ñu mënate ñooñu la ñu war a mais ki nga fekk bu nekk ci biir kayam du délinquant du chaque jour ñu agressé nit ñi fii

règlement bi mo fi dox ah nga tëb di saga ay insanité kooku warul jóge ci gemuñu kilifa man bima démé munéma man commissaire bi ma ñëwone fofu dama jaxlé parce que man bañ ma interpellé dama ko wo du woote wallu wo commissaire parcelle parce que moo ñu gën a jege man mi ma fa demoon mané non ay agresseur ñoo fa ñëw munéma man mi la donc c'est grave je pense que dëkk bi tollu na fo xamné il faut que ñu recadrer nag autorité yi waaw man de awma droit recadrer autorité waaye kenn ku nekk war nga xoolaat sa bopp ba booy dem ci sa nawle nga xam ban comportement nga fay yóbbu kilifa du njëkk a saaga responsable doo njëkk ay saaga violence verbale responsable moomu ko pharmaciens yi nag xaw nañu sàggan parce que ñun lu ñu teg rek ñu nangu masala bi nag ëpp na fi mu nekk nii dañoo war a taxawaat nag ministre bi taxaw bu fekkee na ñun l'aide la fi nekkal ak population ñu xat bu pour kenn ku nekk la neex la neex waxe la neex ordonnance sa ordonnance population bi ne toujours ordonnance parce que donc je pense que la police sénégalaise doit être au service des populations ñun pour la santé des populations police bala muy sécuriser ken ñun la wara a sécuriser wax ci dal ñu ngi interpeller président de la république di interpeller euh, député yi di interpeller nak suñu ministre de la santé di interpeller le ministre de l'intérieur parce que nak lu ëpp tuuru ñun mënuñu fi nek nous duñu nelaw dañuy assurer une permanence pour la santé de population ñu duñu agresser. té ñi ñu wara couvrir ñi ñu wara sécuriser ñoy ñew nak légui duñu agresser naka ngay jakarlo ak sa nawle ne ko da ngay fen njëkk ko saaga te nekk kilifaam nit ki nag day roy ci ay kilifaam lu kilifa bi def rek administré yi topp ca kon nag nañu seetaat affaire bi pharmacie nag ku fi bëgg garab mu war a laaj ordonnance koo mun a doon dinañ la laaj ordonnance ak koo mun a doon nag ah dëkk bi de nañ ko seetaat de parce que fi mu jëm de ñax du fa sax te ñun nag taxaw nañu nag pour mobiliser nag mobiliser nag du ñu jaay suba du ñu jaay gannaaw suba fii la ñuy taxaw di sitting ci buntu pharmacie bi suba la quinze euh, août ba ba 3 jours daal danañu sitting ci buntu pharmacie bi ku ñu laaj ñu wax li ñu metti